alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci waxtu tedd bi ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa mu jéggal nu te leen yërëm nu te leen di ko doolee ñaan sunu borom tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwan mu tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen jullit yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi ak ci waxtu bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jéggal nu te jéggal di ko ñaan doole ñaan mu bàyyi fi suñu kilifa gu tàdd gi ci suñu kanam lu yàgg lool te tawféexal ko ba mu àggale yéeneem ci diine ji ak yéeneem ci yoon wi te ñu bokk ko ak moom sunu waxtaanu tey nag ñu ngi ko jëmale ci rek bis yu tedd yi nga xam ne mooy bëgg ñëw muy fukki fan yu jëkk yi ci weeru tabaski muy fukki fan yu am solo lool bari ay njariñ lool ñu mën cee amee ay yiw yu bari lool tam ndax sunu borom tabaraka wa taala xam ngeen ne moom moo bind jamono yépp bind barab yépp bind jëmm yépp waaye barab yi ak jëmm yi ak e, jamono yi da cee tànn yenn gënal leen ca yee ca des te loolu moom ci nammeelam ak ci ak xereñam rek la koy defee bu wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar lu ko neex ak nu ko neexee noonu la koy defee tànn ci jamono yi ay jamono mu gënal ko yi ci des tànn ci barab yi ay barab mu gënal ko ci des tànn ci jëmm yi ay jëmm mu gënal ko yi ci des bokk na ci jamono yi nga xam ne tànn na ko nag def ci ñoom ay ngëneel yum mu deful ci yi des mooy fukki fan yu jëkk yii ci weeru tabaski nga xam ne mooy tàmbule ci ay fan yu néew ci kanam muy fukki fan yu am ngëneel lool bari lu ci nit mën a màngee lool loo xam ne bu ko xamoon dana góor góorlu bu baax a baax ba màng ko lépp ndax la mu ca mën a amee ci ay yiw néewaane mu amoon ko am ci yeneen bis yi des bokk na ci liy tegtale ngëneeli bis boobu bis yooyu mooy sunu borom tabaraka wa taala giñ na ci bis yooyu te sunu borom ku ne xam na ne moo bind bindeef yépp kon bu ci tànnee yenn di giñ ci ñoom la muy tegtale mooy seen seenu màggaay ak seenu réyaay ak nu mu toll ci moom walfajri wa layaalin ashr borom xam-xam yu bari wax nañ ni fukki fukki fan fukki guddi yooyu wala fukki bas bis yooyu bis la yoo xam ne fukki fan yu jëkk ci weeru tabaski lañ ci jublu kon loolu tegtale ne ak màggam tegtale ne ak réyam ci bis yooyu itam muy fukki fan yooyu ci la bisub arafa nekk bis bi ñuy taxaw arafa ca makka ci juróom-ñeenteel ba la nekk muy bis bu màgg lool ba yonent bi sax am na addis yu wax na mooy bis yi gën ci bis yi donte na am na yeneen addis yu ñëw wax yeneen bis waaye daal bokk na ci bis yi gën ci bis yi bisub arafa bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala wane na ci ngëneelam ci la ci la matalee diine ji ci la matalee xéewal yi mu xéewalee nit jullit yi waaye ci la tànnee lislaam def ko muy seen diine al yowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum niamati wa raditu lakum al islaama diina bokk na ci liy wane ngëneelal bis bi tam mooy moom bisu arafa boobu mooy bis bis bi gën ci at mi bis bi gën ci at mi mooy bisu arafa am na beneen addis bu ñëw ne bis bi gën ci bis yi mooy bisu tabaski waaye lépp li muy teg tegtale mooy ñaari bis yu màgg la ñaari bis yu rëy la yoo xam ne am nañ ci ay ngëneel lu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min yawmin afdalu inda allahi taala min yawmi arafa yanzilu llahu taala ila ila sama dunia fa yubaahi bi ahli al ardi ahli alsama nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn bis bu gën ci yàlla bisub arafa bisub arafa rëy na ci yàlla rëy goo xam ne bu agsee day wàcc ba tolloog asamaan su njëkk si di won malaaka yi jaami yàlla yi nga xam ne ñoo taxaw arafa naan leen xool leen sama jaam ñii xool leen sama jaam yi niñ mel lan lañ bëgg lu ñu bëgg rek ma may leen ko loolu nag dana wane kon bisu bisu màgg bi ndax loo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala daf koy jaayoo ci malaaka ya di ko di leen ko won di leen ko eh, eh, réyal réyalal di leen ko taaralal ngir rafet gum rafet kon loolu lu rëy rëy la ci bis yooyu itam muy fukki fan yooyu ci la bisu tabaski nekk bis bi nga xam ne moom it yonent bi sallallahu alayhi wax na ci ngeen lu rëy ne bis bis yi gën ci bis yàlla yi bokk na ci bisu tabaski ak bis ba ko eh, eh, jiitu bis ba ca topp bisu tabaski ak bis ba ca topp bokk nañ ci bis yi gën ci bis yi sunu borom yi tabaraka wa taala wala yi sunu borom gënal ci bis yi kon loolu wane na fukki fan yi lim dajale ci ay ngëneel waaye bokk na ca it nag jëfal ci yàlla nag moo ko gënal jëfal ko leneen ci beneen bis jëfal ci yàlla aw yiw jëfal ci yàlla ak topp moo ko gënal defal ko ko ci beneen bis bu dul moom maa min ayaamin al amalu fiiha wa min ayaamin al amalu fihinna a ila allahi min hadihi al ayaam al ashr nee na amul benn bis boo xam ne yàlla bëgg na ku ko ci defal lu baax lu gën lu ko gënal defal kooko ci bisi fukki fukki bis yii fukki bis yii ñam ko doon waxal ne ko ba ci jihaad sax fi sabilillah defal ko defal ko yàlla bis defal ko bis yii moo ko gën mu ne waaw ba ci jihaad sax jihaad sax defal yàlla ci fukki fan yi lu baax moo gën jihaad fi sabilillah te ku na xam na daraja bi nga xam ne jihaad fi sabilillahi am na ko ci ci lislaam mu ne ah xanaa xanaa nit koo xam ne dangaa jihaati yóbbaale sa bopp sa bakkan yóbbaale sa alal te ba ngay dil si bakkan ba des fa alal ja des fa dese woo dara xanaa kooku de moom la ñu tëkkaleeg ku defal sunu borom tabaraka wa taala jëf ju baax ci bis yi nga xam ne mooy fukki fan yu jëkk yi ci weeru weeru tabaski kon yooyu yëpp day tegtale màgg goo xam ne bis bi màgg na ko ak yeneen yoo xam ne sax noonu la demee yonent bi sallallahu alayhi wax ko wala sunu borom tabaraka wa taala ko ñu xam ko bu baax a baax ci lislaam gaa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon it doon ko màng bu baax di ko darajal bu baax di ko yëkkati bu baax di ci di ko di ko di ko ci profité lu bari di ci def ay yiw yoo xam ne eh, sunu borom tabaraka wa taala bu leen ko fayee dana nekk yu mag nekk yu rëy kon ñun ñëpp dañoo war a góor góorlu ci bis yooyu xam ne ay tereet la yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa bëgg lépp lu nit am ci lu baax nga jaay ko ko ci bis yooyu ndax bis yooyu kat lu ko ci lu ko ci waay jaay dana la ko fulal fay la la war a fay ba noppi fulal la ko defal la ko ay yool yoo xam ne yow yu rëy rëy la doon jëf ya nga xam ne nag moom lañ ci mën a def nag bari na lool waaye yii rek lañ cey tudd ngir mu misaal ya ci des ba ca jëkk mooy war nañ cee góor góor lu tuubal sunu borom tabaraka wa taala ndax sunu borom tabaraka wa taala yu baax la am ak yeneen waaye day mel ni doomu aadama ndab la loo xam ne daa bëgg a duy lu baax ci ndab li ba mu fees lay sell ci moom nag mooy nga raxas ndab li bam mu set wecc te mooy tuub tuub mooy raxas ndab li bam mu set wecc ba loo ci def ci lu baax ñu mën koo jariñoo kon tuub ci bis yi nekk na lu am solo lool ci waxtu wu ne la am solo waaye ci waxtu wii la gën a am solo ndax defal ci yàlla lu baax moo ko gënal defal ko ko ci leneen yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha yéen ñi gëm yàlla na ngeen tuubal yàlla tuub gu sell te dëkk ca waaye nag dafa gën a feddliku nag ci bis yi ngir def lu baax da cee gën a feddliku kon dañuy góor góor lu di ci jéem a tuubal suñu borom tabaraka wa ci dajale sartu tuub yépp nag ci rëccu gaag bàyyi la ngay def ak ak yéene bañ caa dellu loolu lépp ñu matale ko te di ko def lu baree baree bari sëriñ bi sëriñ bi defal nañu ci jàppanal lool ndax am na ay xasida yu bari yoo xam ne ci tuub rek la ko def tuubal yàlla ak jéggulu ko ci ay xasida yu baree baree bare bari yoo xam ne kenn mënu koo jeexal waaye ku ci góor góorlu yàlla dana la dajaleek tuub googu beneen ba ci des mooy ñi nga xam ne dañoo nekk makka wala dañoo war a dem makka ñu dem makka ci bis yooyu bis yooyu ci la arafa nekk ci la bisub aj nekk ci fukki fan yooyu ci la nekk muy juróom-ñeenteel ba ak fukkeel ba te aj du lu rëy lool ñu ngi ñaan ci occasion bi sunu borom tabaraka wa mu xéewal nu eh, ba lii nga xam ne moo ñu tee aji te jullit yëpp aji te ñu lu bëgg lool yàlla fajal na ko ci daraja sëñ bi bu ne jàmm lu mu gën a gaaw sunu borom yëkkati li nga xam ne moo ñu ko xañ ba ñëpp mën koo joxe nañ ko bëgg a joxe ndax aj gu ñu nangu kat sunu borom tabaraka wa taala du ko fayee lu dul ajjana alxajjul mabruur laysa lahu jazaun illa aljanna aj gu ñu nangu yàlla du ko fayee lu dul ajjana kon aj ci bis yii la ko nit ñi def la ko jullit di def arafa it ci bis yii la ko nit ñi di taxaw kon bis yu màgg la yoo xam ne loolu yokk na ak màggam kon ku ci mën a aji ci bis yooyu loolu mooy li nga xam ne taamu nañ ko ba ca des mooy ci yiñ ci taamu mooy nga wattu ci mboolem say wari gar yi nga xam ne ay farata la ci yow daa nga ko def xëy na waaye bu bis yi dikkee nag nga gën caa farlu gën a farlu ca def ga fukki fan yi nga gën a farlu ci loo doon def ci ay farata nga gën koo def julli ya nga di ko def ci waxtu ya te di ko rafetal di ko matal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kama raaytumuni usalli di ko jullee nam ko doon jullee di ko rafetalee nam ko doon rafetalee sunna yaag aadaab yaag yépp nga boole ko ca te gën caa góorgóorlu nag ci bis yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñëw ndax moom julli mooy li nga xam ne moom lépp lu nit di soxla woo rek jullee ko gën a yay wala ngaa soxla woo leneen rek da ngay soxla woo julli ba noppi door caa teg leneen loo cay teg noonu ko sëriñ bi waxee taw ci ci ci ci dénkaaneem yi daal ne ku julli koo xam ne julli soxal na la walis soxlay adduna yi da am la nga war a am ci julli te soxlay adduna yooyu du la raw waaye koo xam ne soxlay adduna yi dalaa soxal ba nga bàyyi fi julli doo jariñu ci soxla si adduna yi doo ci jariñu te doo jariñu ci julli kon loolu tegtal ne kon julli ci waxtu yi nekk na loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala fonk na ko lool réyal na ko lool kon waxtu wu nekk lañ ko war di fonk di ko wattu waaye nag rawatina ci bis yii nag moom luñ ko fonkoon rek war nañ ko gën a fonk te gën cee góor góorlu tey li ñuy wax ci bis bi lu ci ëpp ay naafila la yoo xam ne boo ko defee ab yool nga cay am waaye ñàkk gaa def mën na la bañ jural ab bakkaar waaye lu baree bari ci nit ñi nag bu ñuy tudd yu mel noonu nga xam ne ay ngëneel la dañ koy jéem a def waaye dañuy sàgganee seeni farata farata bala ngaa def dara rek lu ñuy tuddee ngëneel wala lu ñuy tuddee sunna moom da ngay def say farata ba noppi rek door ko ca teg اشهدوا أن لا إله إلا الله أشهدوا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد sudul السلام ci farata yi di ko gën a rafetal di ko gën a matal eh, ni ko sunu borom tabaraka wa ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi sunu borom wax na ci hadisul qudsi boo xam ne bokk na ca lam ca wax wa ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kenn jéemuma jege-jege lu ci lu gën li ma faratal ci moom li yàlla farataal ci yow loo bëgg a bëgg a jege yàlla ak loo mën a mën a def ngir jege yàlla lim farataal ci yow moo ca gën a gaaw ca loola loolu jeexee nag nga door a góorgóorlu ci ya ci des nga xam ne dana lay dolli ay yool bokk na ci li ñuy góorgóorlu ci fan yi itam mooy baril ci nag wépp jëf joo xam ne jëpp jëf joo xam ne ju yiw la jëpp jëf joo xam ne ju baax la ju baax jëpp jëf ju baax rek moom dañ ko war a def ci waxtu wu ne waaye jamono yii nga xam ne nag ci la ko yàlla gën a bëggee ci lañ ko war a góor gën a góorgóorloo ci la gën a fàttali koo waaw ndax day say say yool da cee dolliku say eh, tiyaabo gën caa dolliku maa min ayaamin al amalu al amalu saalihu fihina ahabu ila allahi min hadihi al ayaam waaw noonu ñu ko waxee woon amul benn jëf joo xam ne gën naa sopp ci yàlla jëfal ko ci bis yi bis yi moom jëfal ci yàlla lu baax ci la ko gën a bëgg ci yeneen bis yu mën a doon kon jullit bi war na ci dundal ay waxtoom ci eh, ci ci ci ci ci ci julli ay naafila yu bari waaye di tudd yàlla lu bari di jàng alxuraan lu bari di ñaan lu bari di saraxe lu bari di jéem a topp say waajur di leen defal lu baax ci lu bari jokk ak bokk ak jëpp jëf joo xam ne jëf ji yiw joo xam ne sunu borom tabaraka wa sopp na ko ko def te dana la jegeel sunu borom tabaraka wa taala kon lépp lu ci doon waaye doon def ci lu baax ci yooyu yëpp gannaaw bu farata yi wéyee na ko dolli te gën koo rafet rafetal te gën koo euh, euh, jaarale ci yoon ni ko sëriñ bi waxee radiallahu taala anhu ne na ngeen fab seen waxtu yi di ko dundal waxtu yi ngeen am dee leen ko dundal ci ay naafila gannaaw bu ngeen bu farata yi jàllee wa amiril awqaata bin nawaafili baada al faraidi bi laa taxaafuli dee leen dundal seen waxtu yi ci naafila bu ngeen julli bu ngeen defee seen farata ba noppi la des ci seeni waxtu di leen ci góorgóorlu ci naafila yi di ko dundalee waxtu yooyee wa hakata bi sawmi wa awraadi wa zikri wal fikrati fi tamaadi wa bi tasadduqin wa jazmil maali ila zawil xaaji bi isnil wali laa siyama fadilatal ayaami gis nga ko yu baax yii yëpp nee na da ci góorgóorlu bu baax rawatina nag ci bis yi nga xam ne sunu borom da ko tànn def ci ñoom ay ngëneel bis yooyu moom bu ñëwee loo doon def ci lu baax yokkal loola loo doon def ci lu baax gën koo gën koo sellal laa siyama fadilatal ayaami kon eh, jëf yu baax baax na jamono yu nekk waaye ci jamono yu nekk nag fukki yii ci la gën a ko bokk na ci jëf yu baax yi ñu ciy jëf mooy fas yéene woor juróom-ñeent yépp nga tàmbalee ca benn fan ba ca juróom-ñeenteel ba ku ko mën a woor sunu borom tabaraka wa taala mën nañ la caa fayee yool bu rëy rëy rëy rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee na ci sayyidat sayyidatna Hafsa mi nga xam ne ci waa këram la bokkoon mu ne ñeent a ngi ni yoo xam ne yonent bi mus leen a bàyyi ci ak dundam ñeenti mbir yonent bi mus leen a bàyyi ci ak dundam woor bisub tam xarit ak woor juróom-ñeenti fan yii fukki fan la waaye juróom la ci jublu ci weeru euh, tabaski juróom-ñeenti fan yi jëkk ci weeru tabaski ak woor ñetti bis ci weer wu ne ak julli fajar bala ngaa julli suba nga julli ñaar rakk nee na ñeent yi moom seetluwul ne yonent bi mas leen bàyyi benn yoon saa bu nekk rek daf leen di def te ñi toppoon ci moom it dañ ko ci doon roy noonu la ko sëriñ bi waxee ci masaalikul jinaan wa raxabu fi fi sardi chahri rajabin wa misluhu fa fatasi bi neen sopp nañu ko wala xemem loo nañu ko màng weeru rajab ak weeru muharram woor ko lépp sopp nañu ko waaye rawatina nag wa tisxu sil xijja ak juróom-ñeenti fan wala juróom-ñeenti fan sil xijja juróom-ñeenti fan yépp nga woorandoo ko benn yoon loolu sopp nañ ko lool xemem nañ ko lool waaw loolu wa kullu man fii sawmiha yaduumu fa sa yanaalu dahra maa yaruumu képp ku ko saxal di ko war rek lépp loo sàkku ci sunu borom tabaaraka taala mën na lu ko may waaye gën naa feddali ko nag ku munta woor juróom-ñeent juróom-ñeent yépp it gën naa feddali ko nag woor bisub arafa moom day loo xam ne lu lu ko ëpp nga neel amul mooy bisub ñeenteel juróom-ñeenteel ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woor bisub arafa maa ngi jàpp naa ne mën naa maanaam mën naa mën naa mën naa far bakkaari at bi jàll far bakkaari at mi ñëw képp ku ko yàlla dogal ba nga woor ko sa bakkaar yi at mii ñëw ak sa bakkaar at mi jàll sunu borom tabaraka wa taala daal def ci ngëneelam nga nga ñu far ko wa raxabu fi sabatil ayaami anil ula tadooru fi l ayaami taahun li dil hijjati waaw taahun li til ijjati mooy juróom-ñeenti fan ci tabaski te mooy bisu arafa woor ko am na ngeen lu rëy loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dana ci fare ñaari at yu jëkk ak yu mujj wala at mu njëkk mi ak at ma ca ma ko jiitu bokk na ci li ñuy sopp ci bis bi tam ci juróom ji fukki fan yi jëf yi ñu ci sopp mooy nag rey ci ab gàtt nag lan mooy jëf ji ci gën a feeñ rayal ci sunu borom tabaraka wa taala ko ci deret ci bis bii ngir jaamoo ko yàlla sunu borom tabaraka jëf ju rëy joo xam ne sunna su feddliku la soo xam ne yonent bi musu ko bàyyi wax nañu fukki at ci ci Madina yonent bi mus sa bayi tabaski at mu jot dana tabaski dana tabaski ñaari xar sax rey benn bi yéene ko boppam rey beneen bi des yéene ko ci xeetam képp koo xam ne sa kattan mayu la nga nga mën a tabaski daal di wax ne maa amala aadamiyun min amalin yowma nahri ahabu ila allahi min min ihraqi dami innahu la yati yowma alqiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ashariha wa inna dama la yaqa'u min allahi bi makaan qabla an yaqa ala ardi fa tiibu biha nafsa nee na amul benn doomu aadama boo xam ne defal nga yàlla lu ko gënal tuural ko deret ci bis bi amul loo ko defal rek tuural ko deret ci bis bi moo ko ko gënal bis boobu la nga ca tuur la nga ca tuur door jang ca tuur wala gàtt ba nga ca rey wala langa nga ca e, yéwénal soo borom tabaraka la day boole jëmm ji yëpp du ca bàyyi dara béjjën yaag e, e, weeyaag karaw gaag lépp la sunu borom tabaraka wa taala di boole defal la ko aw yiw defal la ko ci sa euh, sa sa balance yiw loolu lépp sunu borom tabaraka wa taala mën na ko te dana ko defee noonu kon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na na ngeen ci na ko def ci xol bu sedd nag bu ngeen koy def na ko def ci xol bu sedd loolu nag wax la joo xam ne ay junj la ndax ko gis tabaski ni muy mel nga xam ne bu teroo mboolem ñi ko war a def day mel ni ñoom waxuma xol bu sedd ba waaye seen xol day tàng waaw ndax day day dañuy tiit dañuy jàq ndax Eh, eh, soxla yu bari ya leen cay war te te te yàlla tegu leen ko ñu teg ko seen bopp kon bu boobaa seen teeyu bakkan dana ci dana ca dana ci ñàkk te loolu la ca suñu borom la jublu mooy nañ ko def te teeyal ko teeyal ci def ko def ko ci teeyu bakkan xëy koy def tam neex la danga koy def te looy def tam neex la rek day doon loo loo mën kon loolu lépp ay jëf la yoo xam ne eh, sopp nañ ko ci fukki fan yooyu ku ko ku ci jëf ak yeneen jëf yoo xam ne nag lépp loo xam ne lu baax la rek mën a jegeel yàlla man a tax yàlla sopp la nga def ko ci bokk nañ ci eh, li ñuy war a xamit nag te teel koo xam mooy li ñuy sart ci am tabaski tabaski wax nañu sunna la suñu feddali waaye bokk na ci lañ ca sart nag ngir mu mën a nekk sunna soo xam ne sunna su mat lay doon mooy sart yii may bëgg a tudd sart yu bari la waaye yii moo ci gën a am solo waaw yi ci gën a am solo mooy na nekk ci jur gi xar yi bëy yi nag yi gëléem yi yooyu rek la mën a nekk yooyu rek lañ mën a tabaskee waaye loo cay tabaskee na mat at yañ wax ne moom lay mat ñu doon ko mën a tabaskee at ya bu dee xar na mat juróom benn weer bu dee bëy na mat at bu dee nag na mat ñaari at bu dee gëléem na mat juróomi at fii nag li fi gën a bari mooy xar ak bëy kon mu mat juróom benn weer gën jaa tuuti wala mu bu dee bëy mu mat at gën jaa tuuti moom lañ ca sàtt waaye benn sàtt ba jël si mooy na na na mucc nag ci bépp ayib boo xam ne day tax du du doy bépp ayib boo xam ne day tax du mat tabaski na ca mucc ayib yooyu nag yi ci gën a am solo mooy bu mu bu mu bu mu soox bu mu nekk menn xel wala mu gumba bu mu wéradi wéradi gu metti lool koo xam ne ku ko gis xam ko waaye bu mu jeex lool tam ba amul dara ci eh, eh, lu ñu mën a taamu ci am xar ñeent yooyu mooy yi nga xam ne moom yonent bi sallallahu daf koo tudd ne kuy tabaski da nga wattandiku yooyu mu nga xam ne moom la tudd ba ca des mooy na ko moom nag day sa alal julew domm séqoo ko kenn yaa ko moom sa bopp ba ca des mooy na nga ko rendi ca waxtu wa nga xam ne ca la ñuy eh, yéwénal am tabaski te waxtu woowu mooy gannaaw bu ilimaan rendee ba noppi ba ñaari bis ci gannaaw tabaski bu jant ba sooyee nag loolu moom bu booba la euh, waxtu wa yem bokk na ci li ñu war a xam nag mooy charia bu dee ñaaxe ci soñ ci ñu ñu ñuy màng euh, bis yu mel nii dafay bëgg ñu mu nekk ndimbal ci noonu ngir dolli sunub cawarte saa bi bis yi ñëwee ñu dolli sunug cawarte ñu dolli sunub yool ñu dolli sunub jege jege yàlla gën a gën a jege yàlla ci bis yu nii ci ay jëf waaye bokk na ci it ñu gën a sori sàggan sàggan te sàggan du dara lu may euh, euh, am loo mën a def nga sàggan ba defoo ko loo mën a def mu jural la aw yiw nga sàggan ba defoo ko mu xañ la aw yiw waree bare bari wala takun min al ghafilin sunu borom tabaraka wa taala sa fu mu toll daf ni wattandiku loo sàggan sàggan mooy faatal aw yiw am solo woo xam ne mën nga caa jëndee lu baree baree bari te nga sàggan ba amoo ko ca loola lu mat a wattandiku la li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtaria al kanza biha laa yatanaha xayruhu fanta biha waxtu moom waxtu cher la woo xam ne loo ca am genn noo képp mën nga caa jënd aw yiw woo xam ne yiw lay doon woo xam ne kenn du xam nu muy nu muy nu muy toll kon loolu mooy li jëm ci wàllu tabaski la ca aju ci tabaski ma lañ ca sart ak ye détails ya nga xam ne moom la laaj yépp nag borom xam-xam yaa ngi koy wax jamono yu nekk ci rajo yi ñu ngi koy wax ci eh, jumtukaayu xarala yi kenn ku nekk mën nga caa jot boo ko bëggee eh, xam nga dem foofa xam ko fa yal noonu yàlla dimbale tu wa taala ba ñuy gaawtu ci màng mboolem bis yi nga xam ne suñu borom daf koy màngaloo yàlla na yàlla def ñu mën koo màng te jëlee ci la nga xam ne moo leen ci diggee te jàppal na ñu lépp loo xam ne lu jafe woon la te eh, eh, bis yi nga xam ne mooy fukki fan yii li mu ci wax ak li mu ci def lépp ci ay ngëneel yàlla may na ñu mën koo màng ba lépp ñu mën a daje ak moom jaay sayyidina moom sallallahu alayhi wa sallam innahu samiun mujib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa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 فالتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه اعتقادا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم fasta'iddu lil mawti faqad adhallakum wa qad qaala sallallahu alayhi wa sallam akthiru min dhikri haadimi ladhaati xataa yanqatia rukunukum ilayha alaa wa innakum fi yawmi amalin laa xisaaba fiih ألا وإنكم توشكون في يوم حساب لا عمل فيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الحمد لله غافر الذنب ساتر العيب قابل التوب سديد العقاب فاتح أبواب الإجابة لمن دعا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فيا سعد من سبقت له الحسنى ولطاعة الله سعى نشهد أنه الله الذي فتح بخاتم الأنبياء من الخير كل باب صلى الله وسلم عليه وعلى ما له من الآل والأصحاب أما بعد فيا عباد الله من أراد أن يقرع في مناهل الصفا فليتق الله وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى فقد أمرنا الله بذلك لننال أجرا عظيما واعمروا بذلك هذا الشهر الجليل وبالنوافل الطاعة وبما أمكن من الإحسان بقدر الاستطاعة قال عليه الصلاة والسلام الجنة لكل تائب والرحمة لكل واقف فالتوبة إلى الله هي مفتاح أبواب الرحمات والإنابة إلى الله سبحانه هي أساس أساس العبادات والقربات لم تزل منهلا كريما يتوارى الأصفياء وشرابا طهورا من شراب من شراب العارفين بالله والأتقياء وهم يتضرعون إلى الله بالإنابة والاستغفار ويمدون إليه أكف التذلل والانكسار تائبين له خاضعين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاد سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد الله حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة يسعى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت إلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم allah allahu akbar sami allah habbana allah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.